Your name came out.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 mooy yaayam rasulullahi dimaamam sëriñ si mooy seen ilimaan moom fukki at rek la matal mu génn xawdu ci ndigal jëm soowu jant ngir toxal bokkaale yàlla ak caaxaan noonam yi naan ko day njabar ñu weddi naan ko day sabar ñoom duñ ko lor yàllaa ko dar muxtaar la tudd asamaan xanaa yëgoo li mu defoon noonam ba siidi buur la woon bi mu defee cheikh saad bu noon ngir bon gu metti ak kañaan dagam yu bon yi di ko jay te naa ko yaa fi nekk tey xërëmkat bi daa bëri ay génneeku fi saadoo nga naa ko yow yamal sama boroom moo ma xamal ni sama géej fii lay baawaan si dina suuf si maa ko moom réewum taraar sa maay boroom yow saadu bul ma def moroom suuf si ma moom du sa cosaan saadu ëbbi ne ko doo buur xasab nga am te si nuur bàyyi fi suuf si ak sa nguur yow yàlla moo lay alamaan ñu teg si loolu diir gu néew buur bi ko tooñoon nekk néew saadu ëbbi def suuf si réew dag ya torox bay yeluwaan cheikh saad bu moom demoon na ndar tubaab bi naan ko loo mu ne xanaa def li ma war raxas xol yi si imaan dindil sa kaala bii nga ñu indil xamul amaama bi siggil islaam ak imaan ak ixsaan ba saadu laalee kaala ba la yàlla yëngal bureau ba tubaab ba tiit fi buntu ba te naa ko les ndax ni waxtaan ba saadu teggee nag loxoom tubaab ba waaru na ci moom ndax xar baax bii mu def ci ñoom jaaxal na lool bépp nasaraan tubaab bi naan ko ndax kurus bii nga yore jëriñ na pus mu ni ko man de duma rus te lu ma am ci laa ñaan kurus bi mooy sama fetal ku ma ci xeex dootoo ma tal sama boroom laa ci wéetal te ma song naa ko mu génnee fasu naaru góor dooleel ndax mu wóor benn per la cheikh na dóor fasan ba faatu muy seetaan mu ni ko saadu est d'accord avec le bon Dieu il est fort saadoo nu mën ci bépp boor ma rabu bii duñu xaaraan cheikh saad bu dekkal na fa ndar ahmadu siise suuf sa xar mu génn tontu ko lu wér wax ni ko ray doy na kéemaan cheikhu turaat moo ko nandal ay kaasi leer ba mu doyal ba moom bu ne yàlla tawal mu dal di taw bay walangaan cheikh al mahfubu kaasamaas saadu ci barkeem la ko taas jox na ko moom ay ñaani xaas xamal koy mbóot ba mu kontaan di lamp si leeri saadi bu la namp ku noonoo saadu du reetaan cheikh ajjuma am na martaba alal ak doom lépp la ba ngir saadu cëy ajjuma ba saadoo ko def xutbu zamaan ahmadu njaay lépp la jaay ngir moom mu def saadi bu waay defar na cheikh ahmadu njaay mu nekk jant ci sodaan cheikh deccalaw féete na kaw doo ko dégg di nga ko naw saadoo ko sol moom deccalaw leeram ñu jolli na nguraan man yéemu naa si cheikh yirim saadu la jox lépp mu am yérim du mbaan am na ngërëm saadoo ko def ko moom def na diir te yàquwul ñu delloo ko ci bàmmeelam yërim dumbaan cheikh pate mi yàlla aar ci yoonu saadi bu la jaar cheikh pate sarr doyoon na waar moo dëgg woon daawul mbaraan ahmadou diop wali yu piir saadoo ko nandal ba mu miir ba tey turam jëma ngay riir fële ca gàbb ak gaawaan ahmadou loo bàyyi na mat bi mu naanee desitu njar bu saadu naanoon lii du nar ahmadou loo doy na kéemaan cheikh njuga jaañ moo doon kamal rawoon na moom bépp rijaal baatin ba saadu moo ko taal du wax du def jëfu safaan ceerno mohammed ali saw de raw nañu ba faw saa doo leen sampoon fa diigaan Mouhamadou jimbiree di mbër saa du la toppoon jox ko cër mu def si moom baatin gu wér moom yàlla rek la doon woyal cheikhu le nuuni lay jàmbaar saa ko sol mu fees kaar wayam ya yéem na bépp naar si teenu saa di bu la naan saa doo defar cheikh Ibra Gueye jox ko ay leer yu dootul fay cheikh Ibra moo bëri may motooru saadi bu du paan man tàyyi naa si bile lim ku topp lim bi daa gëlëm kon lim bi yow nañu ko lem wax si jalooray maami maan yaa rahmatallahi ya tax da kuñ fa suul nga texe ndax yàllaa ko nangul la mu ñaan bushra la wax fa gétt ndar ba mu noppee la yàlla far bàkkaar ya tegg seen naqar lii ma fi wax du taaxuraan wajal ضريحيك بيتك الحرام لي لوي نمشات بتخ لكو فوي لو ساكو ام كو شرحنان نزلت موم لا نيان فاتيس كو سوب سادي بو دوي شيخ الاسلام نيو سانت تيس تامب جماع ام فمكان تعدوني وون موي خليفام عبد العزيز شيخ الاسلام داقنا اي اندي سلام يلا كو دو اوز زمان قال ابو يو غفتكو عبد العزيز جانغ نوركو الأمثلين ريكو سعدو أبي دفنا بيان وخيرت الشيخ سعدو أبي ماموي خليفة النبي يا الله قجوك مقام بي رون السودان رون بيضان باقي صديق أبا بكر برقي علي نك عمر نقول ما وي وي ما دفريا ويا الله أكبر عثمان بجاي طه وياسين بجاي باقي النبيين أرضاء جميع المريدين تقل لسادو نيان ديسان تالي بقادر جيتو جيت خمناني يلا ما ينالين كمال نكي أمو الفنان بلين تسانقو سين بلان بجاي جاي لربنا كمل لنا كل منا وجاي سعدو هب لنا سعادة مع غفران واجعل لنا حسن الختام بشيخنا شيخ الإسلام عبد العزيز يا سلام ونجينا من النيران صل وسلم يا صمد على ذؤابة معد أحمد خير من سجد وعلني على الأقران وآله وصحبه والتابعين حزبه ومن فنى في حبه واجعله جاري في الجنان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والمدن ككل he kaine don kaine la wai to palan kasangala amadam larjisa debu ke puku bukyan dara banyau ngabu gyan dara gawanganya ujewai dara كدان على تسديبو شادو أبي ما مملا شيخ داليبو يا ما مملا شيخ الإسلام ما مملا مدان على تسديبو واي موتون الكاغاني لا دي غايني دو مو غايني واي توبالي الكاسانغالا مادر نالد چه زده بو گرگر چه زیگینا جفنوله چه زیگینا کی دن نالد چه زیدینا یا ننتی مامو زده بو مجھے چیعا مات رسول دیزتی فادی من باتول مجھے چیعا يملا برسول يونين تيمام مسديبو هم دالي ربي سمتانا شنو بارا بربنا كتانا ما تزكينا يونين تيمام مسديبو شيخ الحضرة مسكينا Ya donalet sikina Ya donalet ya seydina Ya nentem amusa debul Tagi ulai bayamla Amat lamin bayamla Rasulillah imamamla Amat donalet ya debul Moidu mubaji saduna Didu mubaji سيدنا مدنا لا سيدنا يونتي ما تصديبو ما ممجوبا تسديب مبكى باتسديب يعلى والسديب لونتينا قال شديب يا رسول الله ويا أبي حبيب الله يا خاتم الأنبياء ومرشدين محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ah, mawtan wa xayaya uxuraya rabu samaay wal ardi wal jibaal وسلام دنيا أيوة بشر دنيا موتا وحيا إيوا يقرايا رب السماء والأرض والجبال والأرض والطفل بخير سبيل فرد الخير fue pues, para lanzar vaca. Guabala. أقفلت أدل وبادر آجلك واختم بخير ya doomi maamin taalibal xayaar man waat naa doomi rasuul borom téeméeri wàllu yi maamin taalibal xayaar maam Cheikh Saad Bou Thiala maam Adda Ramé Thiala yaay suwaadu ay leera Thiala يا شالو ابو من አቡለፋር دون ዶን يقول أمل إن أبي الملا الأولى يحسن قولي يطلع بعد الثناء والصلاة والسلام على نبي المصطفى خير الأنام سلسلة الشيخ مربي الكامل من ذكره أجمل مؤافل محمد المصطفى مع العينين ابن لخد جامي الكونين محمد الفاضل ابن مامين ابن الأقيار ابن جيسلين يضاء بالمختار هو ابن للأبيب ابن ألين ابن محمد النجيب سلل يحيى أول ابن آلي ابن لسمس دين ذي الكمال ابن ليحيى الكبير القلقمي يبدوه إلى على أبي محمد النعمى ابن سليمان ابن أبي بكر النجيب الذي تقى يعين عالم أذاب ابن الذي معالي عبد الرحمن إني أران الذكي أتلال إني أجملال إني وفاء إبراهيم إني المسعود أخ المكارم إني إيسى إني جليل عثمان إني إسماعيل بأربي إحسان فعبد الوهاب ويوسف عمر يحيى وعبد الله أحمد الأكبر إن عبد الله به الأكبر يده إن إدريس تقى الزهر من فضل الله به مكارم رسول المنى على تقوى لنا أبو إدريس الجليل أكبر زلب مطاله لا تختر فجدي ذو الفضل عبد الله الكامل المجيد بلا ثناء يكفيك أن وصي ما فاء وفاء من أمله وعلمه بلا مساء أكرم ابن حسن المصنع ابن أثن سبت فومو فاطمة بنت يا رسول الله شبع فادل yodami ma min taalibal xayaar man waat naa doomi na bi yaa rasulallah yi mooy tamaam Cheikh Muhammad Fadal yodami ma min xayru yaati bi sharif gis naa Cheikh Mouhamad Fadal doomi Maamin Taalibal Xayaan man de waat naa doomi Nabi أمتي يوم القيامه Do amul mas man da duma ko wutal maas anta imama ibnu imama sibti imama. sama am yow de amoo maas man de duma wutal maasey anta imaama ibnu imaama ca yàlla sibti imaama Shamsu Rida. لم يلد ولم يكن خطا يرى له شريك في الذي منه الشرع ولم يكن لذات ابتداء ولا يرى له سنداء يخيج بالعين ولا يدركه بالعين وتسير انه اسلك شخصا بنانا هو الكريم هو الرحيم هو الأبد هو الغريب هو اللطيف هو الصمد نسأله سبحانه من فضل صلاة على الإمام الرسلي محمد شفيعنا في المحشر وعلي وصبي والأنصري شصبنا أنا وبعد saa aqulu inni urid kuy samaam Seydina Muhammad ibnu Cheikhna Cheikh Mouhamad Fadal nee na Cheikh Mouhamad Fadal ban maamin kun taalibal xayaar kun jiile muxtaar kun taal bun Muhammad bun Taal bun Habib Chérif Samaam bun Taal bun Ali Seydi Yahya Seydi Ali Shamsuddin Yahya al-Kabir al-Hamiyu bun Mulaay Abdurahman bun Mulaay Araan bun Mulaay Asmalaan bun Mulaay Ibrahima bun Mulaay الحاج المسعود ابن عبد الله الكامل بن حسن المسنا بن حسن سبتي وأمه فاطمة بنت رسول الله شصت مننا أرجو أن يرحمني في الآخرة حتى أكون حائد المفاخرة سبت إيماني يا قريب الفرج هي أمانات المو بتسرجي وباليقين ثبت الإيمان بحق ذاته وبالقرآن ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا أي درشري ولا أماماس ولا ولا ولا أنت غير ربنا لجوستي إن فارقت لرؤيا ونخوتي شصت بنانا إذا الحبيب يا لطيف قد في فافني يا ربنا من الفتن والخبر لا يدمني يا نافع إلا بود ما يرى رادي أجد جواب نصر ربنا لدى سؤال ملك ومنا شصدنا يا واسع القبر يا أفارج الكروب يا غفر الذنب يا غفر الذنوب يا نور يا منور كل من وتريح بنور السامي أنفنا القبر بنور رحمتي بفلك الخدم يا ذا النعمة شصدنا ودود والأسود والتراب من آخر فلك العذاب بذات من له البقاء والقدم يا بايس الأداس من بعد الأدم وجمبرة وأذنت له بعطاء الورد لمن طلبه منه وضمنت له على على على رب الكريم الفوز والنجاح والقبول لمن تلمذ عليه او هدى او نصره انه ب... انه على ما يشاء قدير من اجابه جدير وصلى الله على سيدنا محمد نانا شيخ ايا نانا نانا بن بي خمني موك بن نانا بن بي خمني مو موكو بن شلوخو موم شيخ الشيخ ايا موك بن موم شيخ الشيخ ايا موك بن شلوخو شيخ الشيخ طالب بويا دوم شيخ الشيخ طالب بويا

yàlla mi nga xam ni mi nga xam ni moo mën lépp moo mën lépp am lépp am lépp julli na ci yonent bi julli na ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam wa salaam maa ngi noonu dellu na rek na woon fa woon dellu leen rek dellu leen ay waay taaliba ndigal waay na woon fa woon na leen ñëw شيخ محمد جمبري شيخ شيخ سعد موكو ميتال مونيك ولي كامل شيخ سيدي بوي جمبري شيخ طالب بوي موكو ميتال مونيك ولي كامل نيشا كي نك موم لو دوبي شيخ شيخ طالب بوي بيغا خامتاني موم موكو يار موم شيخ سيدي بوي تاي شيخنا شيخ اياد بيغا خامتاني موي خالي جنرال كل قادر شيخ خال نكو تيكو سي بلاص بايام شيخ سيدي بوي جيم ما ترك الابناء تودا كي مام سيتي كوي دون كون waajoon jox Cheikh Mouhamed Jimbira na ko jox kii ku mu doon jox ci bu mu doon Cheikh Sidi Boye na ko jox kii tey moo fi Cheikh Sidi Boye Jimbira Cheikh Habib Gueye Jimbira nee na mu maam Maram Jimbira nee na xalifa bi nangul na ko njëbbalam ci Cheikh Tali Boye Jimbira yal na leen yàlla defal jàmm yal na leen yàlla defal jàmm yal na leen yàlla ubbil amiin yàlla defal leen jàmm nee na ñaan na yàlla joxale loo xamante ne sax moo kawe njort la seen maam yi amoon ko yàlla nangu yàgg fi lool ci wér yàlla leen loxo yi ngeen wax na ni jërëjëf jibira jibira jibira jibira jibira jibira jibira jibira jibira jibira jimbira jimbira jimbira jimbira jimbira jimbira jimbira jimbira jimbira jimbira jimbira jimbira jimbira jimbira moytu leen paa bi moytu leen paa bi jimbira jimbira jimbira jimbira terrain ñëpp

yàlla ku du mel ni daj waxoon naa la ko Cheikh Naali bu ye jimira ne woon naa la yàlla na nga toog ba toog di Cheikh Cheikh may kala mu am Cheikh Naali bu ye am anta sibto jimira waalidi Cheikh Cheikh Cheikh Naali bu ye jimira um طويل عمرك ببركة سيدنا محمد ببركة سيدي صلاتي يوم مسافي مدينة الشيخ محمد الجميرة بإذن الشيخ أيا خليفة الشيخ طالب يا شيخ محمد الجميرة شيخ شيخنا شيخ سعد العبيد ولا دبر